sëriñ bi dañu sëkk tey ëllëg kon nag nañ ko fas yéene nañ ko fas yéene liggéey liggéey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 billahi min alsheytaan irajim bismillahi irrahmani irahim alhamdulilahi rabbil alamina wassalaatu wassalaamu ala almabuusi rahmatan lil alamina sayidina muhammadin almakin wa ala alihi wa ashaabihi ajmain ixwat alimaani wal islaami wal iraadati assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu bokki M Media Group Nourou Darayni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 mu jàllaleel ñu ko ci mbooleem mbooloo mi ñu bokkal liggéey bu sell bii te di ko ñaanal moom itam yàlla yàggal ko ci suñu kanam lool lool lool ba li muy mébétal liggéey lislaam lépp mu man ko te def ko dañu ànd ko moom di jaay sayyidul wujud sallallahu alayhi wa sallam kon tey fatwa bi laaj bi ñu fi jëkk am rek mi ngi jóge ci Moussa Ndiaye ñoo ngi koy ziyaare Moussa moom dafay laaj ki nga xam ne kii daa nekk ci day julli dem bay taaye fàttali ko ne moom raka am raka boobu rukkoowu ci maanaam daal xam naa bu ci raka bu la mu dem bay taaye fàttali ko ne moom day dafa rukkoowut loolu lañ ko ci wax ne naan yaqumu wa yati bi rukkoo yi wa sujudu sahwi xabla salaami euh, wa in sajada baada salaami fala loolu dañ ko doon ki dem ba toog di taaye farleku ne rakka boobu kat moom rukkoo wu day jóg daal di taxaw daal di rukkoo rukkoo boobu su ko rukkoo ay daal di demaat toog su toogee nag daal di taaye euh, daal di sujjóot sujjóotu sëfi maanaam sujjóot ak jamañ boobu dañ ne maanaam da koy sujjóot balaa sëlmal waaye su xaaree ba sëlmal it su ko su booba su jot boobu dina baax kon day indi rukkoo ba rek daal di toogaat taaye daal di so daal di ta su jot yi wala bu taay ba bu dogo sëlmal bu bari it baax na beneen laaj bi ci topp Pape Babacar moo ko fi yónnee moom itam mu toll ci ñaari laaj moom laajam mu jëkk day laaj al amalu xaarisan li mahallin bihi muharramatun ka roqosi wal malaahi tam ñu ngi lay laaj ndax dagal na ci jullit muy garde béréb boo xam ne bi maanaam dañ fay fecc ak di fa fo ak di fa def lu araam dañ ko naan laa yajuuzu al amalu fi xir amaakin al muaddati lil xaraam sharia dane nit ki daal bu dee jullit la duñ ko may muy nekk ab gardien maanaam di wattu béréb yoo xam ne dañ ko waajal ngir dafa def lu araam bépp béréb boo xam ne bi dañ ko liggéey te lañ ca jublu mooy lu araam lañ fay def loolu duñu may ab jullit mu di liggéey waaye de it duñu may ab jullit mu di nekk ab gardien naanam di ko wattu ndaxte lu mel ni albunuuk ak riba wéetu wal ximaaraat wal ximaar war raqs ndax ne bu fekkee lu mel ni banque yi nga xam ne yii dañuy jël riba maanaam dañuy liggéey ci riba ab jullit waru ko garde bu dee ni béréb yoo xam ne yi dañ ko waajal ngir di jaay sàngara ak di ko fa naan ab jullit waru koo garde bu yoo xam ne itam ngir fa am fecc la rek ak ay fo yooyu itam ne nañ ak kart yooyu yëpp béréb yëpp daal yooyu bërëb yëpp daal mayuñu ab jullit mu dem di ko garder di taxrimil i'anati alal mu'sir ndax ne na loolu dafay mel ni da ngay dimbali ñooy ci mooy yàlla ga ñuy te dimbali nit ci mooy yàlla loolu dafa araam ci ab jullit ndax yàlla ne wa taawanu alal birri wa taqwa wala taawanu alal ismi wal udwaan yàlla dana su ngeen di dimbalante daal di jàppalante da ngeen di jàppalante ci loo xam ne nii seen diine may leen may leen ko muy sharia mu nekk lu baax nekk loo xam ne lii day nekk ak jaamu yàlla waaye bu leen di dimbalante ci loo xam ne lii day waral ak may yàlla ak ak noonu seen biir kon daal loolu moom duñ ko may ab jullit mu di ko def beneen laajam bi ci toppin muy laaj waxtu ñaari rakkaay fajar kañ lay doon ndax moom dane léeg-léeg seen waxtu day xaw a xat ñoom ba dañuy julli ñaari rakkaayu rek euh, di ci bëgg daa teg ci ñaari rakkaay fa farata yi muy julli suba gi ndax loolu mën naa nekk wala déet waaw ñaari rakkaay fajar moom saa bu ñu noddee nodd ak yeete muy nodd gu njëkk googu ñu nodd ci ci fajar gi mooy daal bu fajar jotee ñu nodd ak boo nekkee fu ñu noddu tem maanaam bu fajar gi jotee rek maanaam da ngay xam heure bi nag heure bi nga xam ne bii fajar jot na saa bu jotee rek ñaari rakka yooyu bu la neexee julli ko waaye ñaari rakka itam bu fekkee ne da ngaa bëgg a naafila bala ngay julli ñaari rakka yooyu da ngay naafila da ngay ba pare doog teg ñaari rakka ay fajar yooyu toog nag di xaar eh, sala gi muy nodd gi ñuy julli gi ñuy nodd ngir julli julli farata gi ndax moom boo jullee boo xasee naafila ñaari rakka yu dañ lay tere nga di ca tegaat yeneen naafila kon daal fu fajar jotee ba kere ñuy salaatu diggante ba moom foo ko fi jullee rek maanaam te mu sësaloo euh, dara bañ a jaar ci digganteem ak jullit suba gi su fekkee ni julliwoo ko waxtu woo itam su la neexee nga xaar ba ñu salaatu nga julli ñaari rakkaay fajar yi doo ñaari rakkaay suba yi muy farata gi waaye nag waxtu far farata gi dafa am waxtu waxoon bii maanaam fekk eggoo ca maanaam duñ la may nga di ko julli comme ni mu wax ne ndax ma nes naa julli ñaari rakkaay fajari rek daal di ciy teg ñaari rakkaay faratay yi bu fekkee ni suba ga jotagut loolu dañ la koy koy tere lu dul ni nga am ngànt su fekkee ni nag waxtu wi jege na yow da ngay dem di liggéeyi te li ngay dugg na balay waxtu suba wi jot maanaam loola day départé bu boobaa doo dama am pexe yi dañ la naan man ne bu waxtu wi jegeñee maanaam nga xaw ko jiital tuuti julli ko daal di a dem ci ñaar foofu ngay dem kon fajar daal mooy su fajar jotee rek moom jot na waaye tamit dañu bëgg soo ko jullee tamit nga xaar nag léegi bañ a jaaree wat ak naa la ci diggante bi ak julli farata gi yàlla ñu yàlla doon la defal tawfiq ci jaay si na Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ما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 ni sëriñ bi de sëkk tey ëllëg kon nag nañ ko fas yéene nañ ko fas yéene liggéey liggéey